sénégalais yi ne suñu dellu centimètre dañuy dem ba jeex li ñu xamante nañ leen ko ci télé buñ ko defulee léegi ci délai ci délai bi mooy question bi hmm. xam nga waxoon naa leen ko ñaari at ah ah. délai bi leen waa ji wax moo andi nar andi jafe-jafe loolu lan ngeen ko mën a saar parce que nee amul délai si dina am délai moom cinq jours lañ ko wax mu ne du am délai dina am délai yéen ngi fi ñun ñu ngi fi nañu dox xool mais dans la a dit qu'il n'y a pas de délai. waaw mais délai am na loolu tax na ñu ñu annoncé délai am na li tax délai am na dinañu dellu ci askan gi wax ak ñoom te bu ñu ko deful lu ñu wax dañuy dem abal ñu loolu la ñu wax dañoo suur ci moom parce que dafa am na xam te ni il muy leer.